asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 22 juillet deux mille ñëw ci yéen ci yëglekaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal suñu làmb record Leewtoo TV fu ci nekk daal tey ñëw nga xëy andi ñu ay xibaar ci làmb ji bu fekkee suñu làmb la moom foto xëtam mu njëkk tey lam ju xëy wan ak Eumeu Sène bi nga xam ne day kera ca monument de la moom daje nañ fa ñoom ñaari mbër yi mu mel ni ki nag daje ba na sàpp toroon na lool kalaasante ba mel ni tulli ak màlle ñoom ñaar nag ñu ngi leen wane ñuy feej Modou ak kabam bu xong akub kaanam yor aw yetam Eumeu Sène itam takk ndu lu xonq ca loxo ba jël tamit ay rangaayam rangoo ko di njuug mel ni ki daal kera moom jàppal taroon na lool safoon na sàpp itam ku ne di wax sa la nga yaakaar ne boo ko ko waxee di nga ko déstabiliser ba bés ba buñ ca yëggee nga daan ko dal di ñibbi bu dee ama seen la moom la mu wax Modou nee na ko li leer ba leer yow jàppal ñi nga xam ne ni ñoo la jàpp di la daan maanaam di la foye daal man maa leen daal moo xam Bombardier moo xam Balla Gaye numéro 2 la ku ci ne dalaa daan te ñoom ñooñu maa leen daan yow moom jàppal ne kon duma sa morom Modou Lo ne ko yow d'accord ñooñu nga wax ne yaa leen daan ñoom ñoo ma daan waaye yow moom daana góoma yow maa la daan mu mel ni ki daan ñoom ñaar fi mu nekk nii day bésu le 28 moom déjà commencé gul te ku ci nekk yaa ngay xëpp sa morom lu méttee méttee métti buñ jëmee ci Leewtoo TV tamit gis nañ ñaari mbër yi Modou Lo ci biirub kaat kaatam sexub soccoom di waaj a waaj gaay wër ko entourage am ba tey ci Leewtoo TV tamit gis nañu kii nga xam ne moo di Eumeu moom ca kaw pont fa la jaare wàcc fa nga xam ne nii moo doon monument de la renaissance ca samedi ja mel ni ki daal face à face booba moom tàngoon na jër jër jër promoteur bu tëgg làmb ja tamit moom Moustapha Diop day mu ngay leeral la tax làmb ja ñu jëlee ko arène nationale yóbbu ko fii nga xam ne nii day moo di stade Léopold Sédar Senghor mu mel ni ki daal loolu moom mooy li nga xam ne nii day kera moom amoon na foofu mu mel ni ki diggante moo doog Eumeu Sène moom fi nekk nii day mayante dara fa suñu ko yéenee def moo tax nag yëglikaay yi ñëw tey xëy di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye weekend boobu itam day jàppal ne tàngoon na lool ci wàllum làmb ndax démb ci dimanche ji day boo bëggee dégg dëgg daal kii di Pape Thiam moom moo won ki nga xam ne nii day moo di caatu yoof loolu leeral leer daan ko jël bu rëy léewtu kii nga xam ne nii moo di suñu làmb moo xëy tey di ñu wax lu mel noonu mu mel ni kii nag jéey moo tëggoon boobu combat waaye ca jàppal ca jamono jooju itam day fa nga xam ne nii day moo doon ci arène nationale kii nga xam ne nii day moo di njaga caam moom wan na kii nga xam ne nii moo di Mori Cargo lu leer nañ vingt cinq secondes day la ñu bëree mu wan ko ne man duma sa moroom waaye ci jamono yooyu tamit ca samedi ja ay jàkkaarloo amoon na Fallou Ndiaye fa jaar ca Leewtoo TV ba tey diggante Nguer ak Fara Goro Sok Tyson 2 Farouz ak ki nga xam ne moo di doomu dàngu mu mel ni ki nag diggante yooyu day tàng na jër jër jër Maama Lamine ak Jokkil diggante ba mel ni tuleeg màlle ñoom la 27. ca la ñuy bëre kii moom bu doon day xaar Ama Baldé bu yeboo mu lalli muy guy gi mu mel ni ki daal yëglikaay bi xam nañu day Ama moom tourné na li nga xam ne moo di paasu guy gi daal dëpp na ko wax leneen mbokkam ma nag di Alaaji Mbay moom yëglikaay bay laaj léegi nag ban plan de relance lay def ngir carrière ye carrière am ginnaaw bi ko Adama Diouf daane jël bu gaaw boobu ba mu ko daan ci arène nationale le treize bi nga xam ne moom la ñu génne kii moom Ada Fass la xëy di ko classe muy fils de Zallo nee na Ada Fass day moo la gën a xam li tax nangu ta wax ak man wala mu lekk sama avance ndax xam na bu baax a baax bu ko jëlee la ko ciy fekk Ada Fass loolu la ko fils de Zallo xëy tey di ko ko wax bu nu continuer dem ci record record moom ñëw na ci Eumeu Sène nee na ñu Eumeu Sène day ngir daan Modou Lo li muy mu nekk nii leen la diggante Pikine ak ex CAF daal saagante ngir wut ndam waaye ba tey record day nee na taay si nga day li leer ba leer li commencé le 26 ba le 27 day jàpp le 28 daa mel ni fi mu nekk nii day seen ab saison moom ah foofu day aj nañ ko fa bu wér a wér a wér ndax nag la leen di xaar moom ci fan yooyu la leen di xaar waaye li leer ba leer daal yëglikaay bi tamit ñëw na de di ñu yëgal lii nga xam ne nii day moo di saison bi moom ak tëjëm bu doon la 31 juillet giiw na day ci la war a tëj record nee na li leer ba leer dey daa mel ni nag waa CNG ba ci njiital docteur Alioune Sarr moom saisir nañu ministre des sports bëgg nag ñu yokkal leen saison bi bala 15 août ñu koy doog a tëj ay xibaar yoo xam ne tamit record xëy na tey di ñu ko wax muy yax yi jóob Yékini la tax gisuñu ko ca drapeau chef de l'état ba ndekete yax ye jóob mu nga sopa Japon daal fa la dem Tokyo di capitalum Japon daal fa la yax ye jóob dal di dem moo tax gisuñu ko ngir ay mbiri boppam yëglikaay bi moo xëy tey di ñu ko wax waaye tamit day leneen loo xam ne yëglikaay bi wax nañu ko am mbër mu tukki muy booy fay wakoor ne nañu day moom mu nga Maroc ngir ab tukki boo xam ne dina am ñetti weer kii ay tukkeem ci biir réew mi la ko xëy di awale wala boog ca la koy awale boobu ba tey record ñu ko wax muy gay Gaye numéro 2 yëglikaay bi ne day moom mu ngi tukki waaye ay tukkeem nag biir Sénégal daal la ko yemale ngir ay mbiri boppam yëglikaay bi ñu record moo xëy tey dañu wax loolu waaye ay sa fay jàppal ne tey ay sa fay mbaa yeewu nga ak jàmm waaye nag taala Ndiaye mii day danaa ko jaale xaritam bi nga xam ne moo gën dem àddina te dëkk Pikine sa xarit boobu yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana yàlla sunu borom moo ne kullu nafsin saayixatin mawtin fa kullu man aleyha faniya bakkan bu mos dund da nga mos dee waaye lu mos a tooy bés day ñëw nga wow yow mi dem wala ñi dem ñàkku ñu fulla ñu fi des itam nag fayda bàyyiwu leen fi yàlla na dogal bi yéex rek te buy ñëw fekk ñu ci lu baax. salaamaaleykum mbokki suufa Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di wax na mën nañ leen torop weekend bi guddoon na comme ni ñu koy defee rek ànd ak yéen seen revue de l'arène ànd ak euh, Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssa Faye madame Niang maa ngi lay fay ah, sama rakk sama xarit Sidi Moussa maa ngi lay fay <laughs> di la nuyu di nuyu internautes yi. di wax ne nag tey moom ay lagos yu noir la ñu la ñu xëyee tey ay sa ñuul noir ah? kon noonu la fa demee. waaw Babacar ñu dugg ci waxtaan bi ak li nga xam ne ni moo fi am ci weekend bi mu doon ay euh, face à face bi ci gënoon fës euh, di li nga xam ne moo dox diggante Modou ak euh, Eumeu Sène fële ca monument de la renaissance mystique ba bëri na provocation bu bëri na coow li bëri woon na Babacar. waaw loolu day amoon na fa boo xoolee daal keroog moom monument ba mystique ba doyoon na fa sëkk. provocation ba ak waxante ba loolu nag euh, jàppal na lu ñuy war a xaar la si combat bi ndax enjeu combat bi rek ni ma ko waxee démb si kële Madoum Diouf ma koy nuyu di ko ziar loolu moo si ne combat bi moo toll foofu parce que Eumeu Sène li ñuy wax mooy que ni tey nekk na roi des arènes te 28 juillet la ko nekkoon daaw 2018 mu war a bëriwaat le 28 juillet 2019 ak Modou Lo muy premier génnam après bi mu gañee couronne roi des arènes bi ki mu ko seqal daanoon ko. nga xool kon boobu combat nga xam ne amul xam ma combat la dëgër de booy ñaar doon naa ne combat kumpa la mais combat bi moom ku ne xam na li ciy nekk li ciy nekk mooy ñoom ñaar fi ñu jaaroon ab jaar jaar la jaar jaar booba nag moom la ñuy yeesal ba pare nag am lu ci laxasu muy couronne bi bu dégg seen waxante sax loolu feeñ na ci ndax ëmb ne na ko man dama laa ñi la daan yow maa leen daan muy Balla Gaye muy Bombardier mu du ne ko mais yow daana góoma yow maa la daan d'accord naa ñooñu yaa leen daan ñi ma daan mais yow maa la daan xam nga kon muy wax yoo xam ne nii loolu déjà mooy enjeu combat bi te ëmmal li mu wax am na daan na Bombardier daan Balla kay deux fois waaye moo Modou itam li mu wax am na ñoo ñooñu daan nañ ko waaye moom daan na Eumeu Sène ay sa foofu la combat bi ne ba pare na couronne bi ñëw laxasu ci enjeu ba yokk moo tax ay sa man liy làqar ci loolu le 28 incha allah rabbi yàlla nañ ko fekk retal ko ay sa fay. amiin Babacar dem si beneen combat boobu tamit euh, le set la war a doon muy journée Fallou Ndiaye ñoom euh, Tyson 2 ak Gorsok ñoom it def nañ seen face à face si weekend bi. waaw bërki dem def nañ face à face def nañ face à face boo xam ne nii vraiment ñoo fa nekkoon di ko présenté muy journée boo xam ne tamit journée bu nar a neex a neex lay doon ndax li tax mooy Fallou la mu dajale. la nit la maanaam néew ma promoteur mosu ko def waaye bëriwul bokk. lu mat si grand combat nga boole leen ci benn tàkkusaan yóbbu leen arène nationale vraiment loolu mérito na kon jërëjëf xam nga Tyson 2 ak Gora Sock diggante bi metti na pour wan la diggante ak sa parcelle ak Pikine ren ci ci semaine boobu day narax day nar a metti ndax buñ ko commencé le 27 boobu bët set le 28 mag ñi jël ndax bu Gora Sock ak Tyson 2 pare su bët setee ëmm ak Modou ñooy jël relève ba. ngeer ak franc tamit ci même sa la set boobu la ñuy bëri muy loo xam ne daal kon lu nara nara nara metti lay doon mais nag kon encore une fois rek dañuy euh, remercier Fallou ci journée am yooyu di ko ñaanal tamit mu réussir ko ñoom jàkkaarloo nañ keroog ku nekk waxante waat nga te jàppal combat yi ci nekk ci biir xam nga Mama Lamine xam nga ko xam nga jokkeel ak ambiance maama ak ambiance jokkeel xam nga ko di doomu séréer ñoom ñaar ñuy xëccoo séréer gi loolu lépp nar ca am ngi faruus euh, euh, bi nga xam ne nii moom ne ne ku dàq bëre sama diggante ak doomu dàngu ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla nga daan loolu la wax fu doomu dàngu dàngu ne ko kon di nga daanu ndax maa la dàq bëre maa la dàq maa la dàq xeex muy combat yoo xam ne nii dafa doy waar ñu ne déet ne waaye bébé bis mu nga ca biir moo ki nga xam ne nii mooy Cheikh Super jamono loolu lépp Fallou Ndiaye regroupé ko sans combat sans compter yu ndaw ya ca muy quatre combat yu neex tamit ca kon daal tamit arène nationale samedi moom rate ko du wóor yàlla nañ ko fekkee te tal ko. ñu jógee foofu dem ba tey Pikine seeti ki nga xam ne ni mooy Jules Baldé di mag ci kii di Ama Baldé moom tamit euh, ñëw na ci combat ak guy gi bi ñuy wax moom nee na Ama Baldé dafa tourné boobu page te ci lu yàggul dara dina am combat. waaw lu Jules de loolu la wax dëpp nañ bu page boobu kon ñoom ñu nga ca leneen ah loolu tamit mooy làmba adversaire bi mën nañ la ne yàgg moom fekk na du la gënal nga uti leneen loolu moom deesu ci wax kenn leen parce que ku ne la la mag mu ne moo xam la ko jig ak la ko arrangé kon ñoom xëy na beneen combat leen arrangé ak beneen mbër comme léegi mu taxaw yàlla na am ndax Ama Baldé ren année balance bi mu def moom gënut ci làmb neexut waa làmb te du moom képp dal na Gris Bordeaux dal na Bombardier dal na Gouye Gui dal na Tapha Tine dal Siteu te loolu ak Papa Sow ñoom Yékini Senior Sa Thiès xam nga mbër yëpp bu ñu ko doon lim duñ fi jeex duñ fi jóg te loolu vraiment souhaité wuñu déwén saison prochaine yàlla nañ ko fekkee mu am dañuy ñaan yàlla chaque saison mbër yëpp mën a compétir parce tamit day tax làmb ji a jax rek. Mhm. d'accord dañuy jógee tamit foofu dem si gala yi nga xam ne amoon na ci weekend bi fële ca Iba Mar Diop euh, kii di Pape Thiam daan caatu euh, Yoff fële ca arène Senghor Ndiaga Thiam daal di daan ki nga xam ne ni mooy Mori Cargo fële ca Adrien Senghor nag kii di Biram Diouane daal di daan Cheikh Tidiane ñoo final waaw loolu moo amoon tamit ci samedi bi euh, wala boog si dimanche bi waaw loolu moom nekkoon ay làmb yu neex bu dee arène nationale la ki nga xam mooy Njaga Caam nekk Pikine moom moo daan ki nga xam ne mooy kër Cargo nekk sàkku xam-xam ca parcelle waaw kon mu nekk loo xam ne ñuy félicité Ndiaga Thiam di encouragé ki nga xam ne tamit moom moo di Mouri Kargo ay combat xale lañ mais di encore di nuyu tamit promoteur bi ko tëggoon muy sëñ Modou Niang leneen li ci des tamit ñu di ci ñu di ñu di ko wax mooy euh, le démb ba tey fi nga xam ne moo doon Iba Mar Diop lamb ju neex lambi xale lamb ju fees masha Allah animation ak orchestre biir jéy indi ko fa xam moom yooyu lay def vraiment ñu koy nuyu moog Abdoulaye Ndiaye kii di Pape Thiam tamit ak caatu euh, Yoff nekkoon combat bu am enjeu parce que ñoom ñaar ku ci ne da nga ne ci lancé bu doy doy waar ñu booleen gëj nañoo am defet boo xoolee dem combat ba yàggul bëre la ñu def wëri bëre gis nga ne ko Pape Thiam mujj daane kon ñuy féliciter Pape Thiam di encourager caatu Yoff Adrien Senghor tamit ni nga ko waxee noonu Cheikh Tidiane ñaa lañ gagné final ki ko gagné nga ne nu mu tuddati kon ñu félicité Biram di encourage Cheikh Tidiane Niang waaw loolu mooy làmb daal kon loolu moo amoon ci weekend bi waaw. ñu daal dem seeti tamit euh, ba tey Babacar euh, waa record ñëw andi ñu information comme quoi que euh, lii di CNG bi ren dafa bëgg sàkku ci ministre bi mu posaat saison bi incha allah ba le 15 parce que tamit boo seetoo saison bi am na ay yéex na démarré. am na fi weeru koor Coupe d'Afrique bi ñëw na am yu yu mu jël waa ay élection lu ne dox na fi am naa tamit du ñàkk looloo sabab di ñu ñaan ñu poussaat saison bi bala 15 août waaw loolu moom da ciy baax parce que li tax mu ciy baax mooy ah bu keroogee itam dina may promoteur yi liñ liñ desewoon ñu mën ko yeggale parce que li tax mooy euh, saison bi comme li nga wax noonu élection présidentielle xam nga du lu ndaw ci am réew parce que ci ngay tànn sa njiitum xam ne weeru ngëneel la sans compter mooy Coupe d'Afrique bi ñu jógee bërki dem loolu lépp bu ci duggee nag am lu mu ci jël ci ay fan c'est normal tey waa CNG mën a saisir ministre des sports mu may leen ba le 15 août ñu yokkaat pour benn dérogation loolu yaakaar naa lu valable la quoi te tamit dina arranger promoteurs yi trop ñoom ñi bayru làmb ji di def seen xaalis Euh, waaw Babacar fii dañuy tëjee li nga xam ne ni mooy jàngat bi rek daal di nuyu maam Talla Chéri léegu ci caméra bi moom moom daa mel ni lundi bi daal gis si moom tey ñu dem seeti nuyu tamit euh, Ousmane ci montage bi ak équipe bu Leewtoo TV bi yëpp di bëggee internet yëpp nga xam ne ñu ngi safoo Leewtoo TV duñu so duñu topp saa su ne Babacar. waaw noonu lay demee Talla moom li tax lundi bi dis tey xam nga c'est normal parce que tamit sa xarit nga yëkkati sa jarbaat jox mu koy jàngal métier bu génnee àddina mu jàpp la xam nga dee moom du lu bees ci waaye saa yu ñëwee nag metti waaw mais nag su doon lu ñuy miis la miis nañ ko bu yàgg mais mi kenn mënu koo miis waaw mais nag dañuy ñaan yàlla ñi dem rek yàlla na yàlla yërëm te jéggal leen barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu fi des yàlla may ñu yàgg fi yàgg leen a ñaanal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp di leen balu àq rek lépp lu ñu fiy def rek bu ci njumte amee wala lu ngeen waroon a gis te gisu ngeen ko rek xam leen ne du suñu coobare bu ñu sañoon lépp ngeen di jot bu ñu sañoon lu ñu fi wax tamit day noonu lu lu nga xam ne lu ñu mën a dégg la mais encore une fois tamit Aïssatou di profito di encourager suñu lion yi di leen encourager vraiment li tax mooy 24 équipes fu ñu daje ngay xeex di xeex di xeex ba dem ba final ñàkk du da ñàkk fayda wala nga ñàkk jom wala nga yaafuus non bëggoon nañu am ndam parce ñoom loolu seen honneur lay doon lu leen di yokkal la comme amuñu ko nag du tere ñun itam ñu ne leen jërëjëf yaa ngi dégg ki nga xam ne moom mooy ministre des sports monsieur Matar Ba ñu koy jaaraamal moom tamit parce li ma waxoon rek moom nit la nga xam ne nit ku ubbeeku la pour ñëpp xëy na moo tax yëpp mu di fa yegg si kon xëy na xëcc buy daggul day yegg si kon Cheikhou ku mi capitaine bi ak ñi ñu àndalul ñëpp ñu ngi leen di jaaraamal di leen ñaanal yàlla daal coupe d'Afrique yi di ñëw ba ci coupe du monde yàlla na yàlla def 2021 ñu fekkee ko tal ko te yàlla man ñoo may ñu mën ko jël parce que addina dañ ne moo ku weeru koor a yem rek fekk doog jotul jubu mën tawees kon comme loolu am na tamit comme jubu mënta wees kon xalaatal na tamit bés dina ñëw nga nga jël ko kon loolu lañ leen di wax di leen ñaanal jàmm di ci nuyu sama doom bu ne ci biir Saliou Ciss di di ko waxe mais di nuyu internautes yëpp mais di nuyu tamit Aïda Diouf maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu Leewtoo bi yëpp di leen ñaanal jàmm rawatina kilifa gi Pape Thialis mais drapeau Moussa Diaw nag bu leen ko fàtte samedi le 27 diggante ngeer lay doon ak Franc bis la ci biir bés yi. jox leen rendez-vous suba incha allah.